asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ak àdduna bépp maa ngi dikkaat fii ci dëkk bu tedd bii ci kàddu bi may wax nga xam ne kàddu euh, Sëriñ Tuuba Cheikh Mouhamadul Muntaxa te kàddu bi li ko ubbi mooy waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafaraxoo doon lu ñuy tëj innamal mu'minuuna ixwa fa naa bayna axawaykum loolu moo jógloo sëñ Muntaxa te moo jógloo woon ay waajuram te looloo jógloo woon sëñ Tuuba eh, yonent bi sallallahu alayhi te loolu la taxoon yàlla bindu te sunu jëwriñ di sëriñ Tuuba wax ne wala tuhaadoo man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah kon responsabilité bu rëy boobu nag moo tax lii may yëkkati kàddu du wax di waxaat ndax ca mujjug waxi démb ja Cheikh Basir waxoon na ne bu ko sëriñ bi joxaatee ndigal dana wax kon nag eh, lii indi mbir mi mooy démb dégg ngeen Cheikh Mahamadul Basir ci ndigalal xalif général des mourides ci teewaayu sëñ musa sëñ Moustapha Basir mu yëkkati woon ay kàddu ndax yi xew ci jamono ji ak coow yi duma dugg ci lam waxoon ak la mu waxoon murit yi ndax moo yore woon kàddu murit te moom lañ wax la woon te la mu doon wax sëriñ bi moo ko wax la bi mu ko waxee nag mu mel ni dafa yëngal dara ci réew mi walla kàddu yu sëriñ bi la taxoon mu jóg ñu juutal ko muy toog teg ci nekk ci jataayu yoonu murit wa séeni wu cee def dara dara dara loo xam ne dana moy ndigalal yàlla ak jottali yonent bi sallallahu alayhi ak ndénkaaneel sëñ Tuubaa li nga xam ne moom la wax looloo taxoon bi coow li bare mu yëkkati kàddu wane rek ne euh, na ñëpp dal te defaraat jikko yi te jéggilante teel rekk tax te wane ne lii xewoon barki dem ñu xam ne jubluwul moom génne kenn ci yoon wi walla muy dàq kenn ci yoon wi wala mun naa kii jullit la walla doon tub jullit wala morit la ndax morit la ko morit yi moom te li li Cheikh Basir waxoon mooy am murit bala ngaa doon morit da ngay doonub jullit moom nee na ci boppam la ko njëkke te loolu leer naññ la kon nag ku ñëw doonub morit boppam la kon jubluwu ci Idriss walla mu jublu ci kaneen sëriñ bi politikul politikluwul mi ngi ci ndénkaanal sëñ Touba li mu ko dénk rekk murid yi kon nañu ko déggee noonu te jàpp ne sëriñ bi foofu la leen nekk la te du du jël mukk lenn loo xam ne nii du njàngaleem sëñ Touba digal leen ko wala mu def leen bu fekkee dañ leen a tooñ jéggale leen bu ngeen tooñee jéggalu leen ku tooñ jéggalu nag jéggal rekk ca war sëñ bi daal foofu la ne mu ngi nuyu mboolem kilifa yi diine yi nag ak kilifa yi àdduna yi ak fu fi waay mën a ne ci réew mi bitim réew di leen wax ne jàmm jooju daal moo ne ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu